21h. mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre rek écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu ci Medina Cheikh bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. Euh, Cap Skiring lañ koy daal di nag doore liggéeykat yi fare ci wàllu nag tourisme secteur tourisme bi daal di nag euh, gis seen yaakaar daal di yàqeeku euh, la ko waral mooy Club Med bi nga xam ne daal di nay rek ajandi ay activité am ba tax nag mbir mi ci barab boobu. di wàllu nag euh, tourisme yi day gën di gàllankoor donte ne ñu lu ëpp juróom benn weer a ngi nii daanaka seen liggéey euh, dafa daal di dakk dinañ ci jukki ci ndorteelu xibaar yi région bu Fatick lu war a toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay point de collecte lu aju ci wàllu campagne gerte gi lañ fa daal di nag xayma bëgg nag lu war a toll ci téeméer ci ay euh, junni ci ay ton ñu daal di koy nag matale daal di koy nag séddale ci li aju ci wàllu nag jiwu ji huilerie bi ci daal di nag dikk kii di chef euh, direction régionale bu développement rural ca Kaffrine euh, ci biir xibaar yi lay doon dinañu desandi itam ak lu aju ci wàllu tooke gi ñu daal di njott mu jaar di alawtiku ndoxub géej gi euh, mbir moomu rawatina ba fare ca an ministre bi ñu dénk nag wàllu ministre bi ñu dénk wàllu nag développement durable ak lu aju ci wàllu environnement wax na ne enquêtes yi ñu ngi koy daal di nag wëyal ba tax sax am na lépp li nga xam ne xeetu mandarga la jox na leen ko dinañ ko daal di nag euh, siiwal ak enquête ba fa si na ci moom Abdou Karim euh, dinañ ko daal nag teewlu ci biir xibaar yi ndaje bi am nag diggante ñi di magistrat ki avocat ba ci ay homme d'affaires ngir rek daal di addu jëme ci ñu daal leen tàggat ci droit international na muy daal di doxee di àq ak yelleef rawatina wàllu jigéen yi ñu bëgg rek ñu fësal leen ci wàllu tàggatu googe dinañ ci daal di dikk ak Odile Minkilaan bi teewoon boobu leen ndaje dinañ ci toftal yeneen i xibaar ponk wax sa xalaat yi lu mooy wàllu campagne gerte gerte geeg yi aju yëpp tukki dem bitim réew jël gaal yi ci la daal bokk wàllu mbas mi ah, ci njeextalal xabaar yi ñu daldi ci nag ubbi antenne bi Alassane Wade moo fare ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi eh, Cap Skirring la ñu daal di nag eh, jëm club eh, ëpp club Med bi nga xam ne nag moo yore wàllu tourisme ca barab boobule daal di nay rek ajandi l'activité yi ba weeru février ñàkk ubbi googu nag tax na ba saison bi aju ci wàllu tourisme bi di wëy di amee gàllankoor ay junni junni ci employé yi nekk ci wàllu nag hôtel yi ak yi ni mel ñu ngi ci chômage jamono jile aéro avril ba léegi teew nag yi fii dafay daal di nag. nag wéy li ni mel na metti lool seen xol ba tax ñu jàpp ne nag mbir moomee eh, faaw ñu daal di ci nag indi ab saafara économie bi itam foofee ca département eh, bu yi daanaka dafa daal di aju bu baax a baax ci mbir moom moomu tax sax ñu jàpp ne ñu ngi cib musiba di danger eh, Ziguinchor benn Michel Kanfoudi. gannaaw juróom-ñetti weer yi nga xam ni toog nañ ko ci chômage liggéeykatu hôtel yi nekk ci station balnéaire bu Cap Skirring amoon nañu yaakaar tàmbalewaat ci décembre bi ñuy dugg nii tas tasar gannaaw bu ñu yëgee ni Club Med dafay toxal ubbite saison bi ci 14 ci Jemberin commune boobu nga xam ni foofu la station touristique bi nekk njaqare bu rëy moo dugg askan wi gannaaw bu ñu yëgee xibaar boobu lee Lamine Diop di njiitu guide touristique yi nekk ci diwaanu Ziguinchor moom itam mënul nëbb jaaxleem buñ ko jotee ci téléphone. Euh, affaire bi métti na métti na métti na bu baax a baax a baax na si acteurs yi tourisme mais métti également aussi si pop population bu bu Casamance rawatina ñu dëkk Basse Casamance fii département Oussouye donc parce que ñun fii euh, tourisme bi mooy suñu suñu suñu yëngatu waaw fii tourisme daal bu doxulee rek. nga xam ni activité yu bëree bëri bëri bëri bëri munul munul dox métti na trop trop trop trop si askan euh, yu yeewoo fi Casamance. gannaaw tourisme bi nag économie bu département bu yi wala bokk sax économie bu région bu Ziguinchor yëpp moo daal di nekk en danger acteurs yi nga xamante ni ñooy yëngu ci maraîchage ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci napp ak ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci élevage ñoom ñëpp daañu yëg jafe-jafe yooyu la ndaxte ñoom ci hôtel yi la ñuy écouler seen produit Cap yi wi nga xamante ni lu ëpp ci ñoom ci économie tourisme la ñuy dundee nag fu mu nekk nii ñu ngi ci tiitange bu rëy a rëy ya ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. Eh, benn Michel beneen banqaas mooy wàllu nag euh, mbay mi ak campagne bi aju ci wàllu gerte gi région bi Kaffrine di di ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay barab yu ñuy defee wàllu euh, dajalek jiw gi di point de collecte yi euh, ne ñu seen objectif itam ci li jaar yoon mooy téeméeri junni ton yi nga xam ne juróom-ñaar fukk ak juróomi junni yi daanaka ci huilerie bi la daal di nag jëm am yeneen ñaar fukk xam ne wàllu jiw lañ koy daal di nag def yeneen juróom fukki junni tonnes yi eh, ne ñu daal ci circuit parallèle bi ñi nekk ci wet gi eh, campagne commercialisation bi nag daanaka na mu doore ndank ndànk lañ ko daal di nag nemmeeku ca Kaolack bu ñu sukkandikoo ci Samba Ndaw Taal mi chef de direction eh, régional bu développement rural ca Kaffrine ñu déglu ko ak du Camara. campagne de commercialisation bi. région de Kaffrine. ne semaine bi opérateurs yi dañuy liggéey si li ni mooy jumtuwaay. jumtuwaay yu yu am doole bi si jiitu ndax ñoom dañu war a mobiliser ay gérants dañu war a ay personnes de sécurité bi si topp espace ba nga xamante ni fa la liggéey dafa laaj sécurisation dafa laaj ay bascule yoo xam ne dañ ko fonctionner dafa laaj ay camions yoo xam ne dañu ñëw taxaw mais dina laaj tam ressources financières yoo xam ne ko war a mobiliser ay milliards ñu war a mobiliser des institutions financières tàmbali campagne bi ñoom si ñu war a collecté yenn saa yi ñu gaare seen camion tàmbali di jënd loo xamante mën a dem gum usine le temps point de collecte bi lépp yemb mais am nañu yaakaar ne ni fii ak euh, fin de semaine foofu la ñu gën a gisee dynamisme boobu. donc région bi euh, fi mu toll nii jàpp nañ daal à peu près de collecte nañ fa nekk mais ñëpp ñëpp daal ñoom ñoo fa war a nekk ñoom ce sont des représentants des des exportateurs et des semenciers donc léegi dans les structures officielles 100 000 tonnes yooyu à peu près yi mooy huilerie et 25 000 yi mooy semence Kaffrine tamit le circuit parallèle dafa actif te dafa am solo ndax li ëpp luy dem Touba fii lay jóge te ñu li ñu xayma si at yi weesu mooy ni à peu près dina dem Touba pratiquement c'est le circuit parallèle règle yi état tëral na ko ñëpp respecté mooy prix yi nit ñi respecté ko ponction pont bascule yi nit ñi respecté ko yaakaar naa bu amee rek nañ dem si [r] euh, ñu daal desandeeg wàllu %e campagne gerte gi fàttali ne ponk ci wax sa xalaat bi bànqaasu agriculture ba tey ak kuréel googu di union :fra nationale :fra promotion agriculture durable :fra di UNAP ñoom nag dañoo daal di teg sax ab [r] euh, coopération bu ñu daal di nag %e duppee société :fra nationale :fra coopérative %e taxawu wàllu nag gerte gi di Sonacos UNAPAD la ñu bëgg nag mooy fexe ba gën a jox gëdd wàllu nag %e mbéy mi fexe itam ba matale wàllu béy dundee kii di Sadibou Cissé eh, moom la ñu daal di samp ca bopp organisation boobu gannaaw assemblée générale ba ñu daal di nag amal ci altine ji foofa ca Kaffrine ñu déglu ko moom président union nationale bi di Sandimba eh, Cissé ci micro Mamadou Camara. Eh, bés bu tey dafa nekk bés bu am solo ci UNAPAD union nationale pour la promotion de l' agriculture durable may sax tey di sunu bésu anniversaire mooy bés bi nga xamante ni moom lañ taxawaloon kuréel gu mag gi ci Kaffrine mu ngi nekkoon bésu le 23 novembre. 2019 tey la bés bi delsi ba mu delsee nag dañ koo waxtaanee si suñu biir ñun ñi nga xam ne dañoo ñëw nag féete ko ak bànneex nag ndax kuréel gi dafa nekk kuréelu bànneex waaye ñu ne nag nañ ci boole tey nag ñu taxawal lu ñuy wax coopérative loolu daf ñuy permettre ñu mën a yaatal suñuy activité fexe ba koom gi nga xamante ni mi ngi nekk ci réew tugal yi koom gi nga xam ne mi ngi nekk ci yenn institution yi nga xam ne boo nekkee coopérative rek nga ko mën a am ñu mën ko fexe nag mu dugg ci suñu biir ñu mën ko yóbbu directement si suñuy producteurs yi nekk à la base ca àll ba nga xamante ni ñoom ñooy bay pour dundal askan ah nag pour na taxawal kuréel googu suñu biir pour nag mën a jëmale kanam suñuy activité waaw xam nga coopérative dafa nekk lu am solo réew adduna day dox réew adduna bi yëpp boo xoolee ñu ci bëri coopérative lañ def moo xamante ni boo ko defee ay associé ngeen di doon ko ci dugalee saytu ko dugal ko ci ab banque waaye nag bu nga dugalee ci ab ah, liggéey association du def activité génératrice de revenu jënd ak jaay ñu ne nag nañ créé coopérative bi buñ ko defee nag ñun si suñu biir lépp loo xamante ni ñu ngi koy am si suñu biir ñu koy jaay si suñu biir di ko indi si suñu biir muy am nag jeexital boo doon jaay fukk dina paat jël ko jaay leen ko fukk ak ñaar am ca dërëm dërëm boobu nag dajaloo si suñu biir ba dërëm ba mu nekk njëriñ loo xam ne day delluwaat ci ñoom ci seen i activité ay unité de transformation lañ koy jëndee ak yeneen ak yeneen ak engrais jox leen ko pour ñu mën a gën a defaat production bu am solo mu jëmaat ci askan eh, fexeel ba gën a joxaat gëdd leneen waaye itam yorin bi gën a mucc ayib mooy lu aju ci wàllu eh, mbalit mi mooy plastique bi mooy li aju ci wàllu itam déchets solides yi eh, Tiwaawan daal di dalal xew-xew bu njëkk ba ñu amal ca projet boobu nga xam ne bu ñu noppee ca Tivaouane bëgg nañ ko def ca Touba ak Ndakaaru ah, ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu environnement euh, di Abdou Karim Sall ñu dem ba Tivaouane fekki Babacar Sow. taxaw tembe ci li nga xamee ni jëm na ci nu ñuy saytoo déchets plastiques yi rawatina ndox yu bon yi Tivaouane mu ngi doon dalal ubbite gi di projet boo xam ni ñu ko fas yéene tëral ca Ndakaaru pays réew mi ak dëkku diine yi di Touba ak Tivaouane programme bi nga xamee itam suñu sukkandikoo ci jëwriñ ñu jore wàllu dend gi Abdou Karim Sall bi ko doon jëmal dina mën a tax ñu saytu lépp loo xam ni jëm na ci wàllu mbalit mi jóge ci mbuus yeeg li ni mel ci dëkkub Touba suñ koy xayma toll na ci ñaari junniy tonnes at mu nekk ci dëkkub Tiwaawoon fexe ba ndox yi bon yi nga xamee ni mooy jóge ci foos yi mu amul njariñ askan wi dëkkub Dakar itam foofe li jëm ci wàllum xeetu jumtuwaay ci courant ak xeet yi bagages yi ñu jëfandikoo ci kër yi Abdou Karim Sall jëwriñ jore wàllu dend gi lañ ciy déglu ville de Touba et la ville de Dakar ville de Touba bi dafa concerné par li nga xam ne moom mooy valorisation déchets plastiques projet bi war ci valoriser lu toll ni 2000 tonnes par an la ville de woon concernée par li nga xam ne moom mooy valorisation li ñu tuddee bout de vidange mais également la ville de Dakar concernée par li nga xam ne moom mooy valorisation de déchets équipements électriques ak électroniques di sant parties intéressées yëpp mooy euh, l'ONAS l'ADIE l'UCG ak ñëpp ñoo xam ne indi nañu seeni ndimbal pour que projet bi antu meerib Tiwaawoon kilifa yi nga ko ndogal yi di rafetlu waaye itam suñu nemmeekoo ni coppite am ci wàllu dend gi ak tàngoor wi mën nañ cee jëfandiku ba lépp loo xam ne jëm na ci wàllu koom-koom jëm ci wàllu engrais biologique yi ak lépp loo xam ne lii iteel na mbay mi su fekkee ni ndox yu bon yooyee daal dinañ ko soppi jaraafu dëkkub Tiwaawoon Mamadou Diagne du Mbengue le gouvernement du Sénégal rafetlu bu baax a baax senegal taamu Tiwaawoon ci wàllu soqaliku rawatina ci wàllu koom-koom ci dénd bi projet bi dina mën a tax wàllu koom-koom bi gën a tax ñu yokk suñu pas-pas ak taxawaay Tivaouane Babacar Sow dañ ko jokk ko kenn fii ci dëkk bu sell bi pour Sud FM. Euh, Babacar euh, Sow ci la sax euh, addu moom ministre bi jëmee nag ci wàllu tooke gi ñu njort ci géej gi ak la mu daal di faagaagal ci xeetu nag jën ak i espèce rawatina bee bu ànd moom nee na enquêtes yi ñu ngi koy daal di nag wéyal ngir daal di leeral askan wi mbir moom mi Abdou Karim Sall yëkkati kàddu yi ci lancement bu projet boobu am ca Tivaouane ñu déglu ko ba tey ak Babacar Sow. analyse yi ñu mën a tënk ci wàllu li xew fan yi ñu weesu par rapport ak nappkat yi sunu équipe demoon nañu ci géej bi pour def ay prélèvement prélèvement yooyu def nañu fukki prélèvement quatre yi ñu ngi concerné ndox euh, quatre prélèvement yi ñu ngi concerné algues yi deux prélèvement ñu ngi concerné jën mais bi ñu analyser analyse bi résultat bi génn na mais résultat bi wone na ni ndox mi amul benn gàkk-gàkk buy tax mu am genre feebar ñaareel bi lépp luy jën amul benn problème par rapport ak li nga xam ne moom mooy seen consommation donc amul benn toxicité bi nga xam ne mun nañ ko tuumaal wàllum lekku jën loolu foofu la ñu toll mais ñu ngi continuer tey jii sax amaat na beneen équipe bu dem presque normalement à huit kilomètres du village de Ndayane euh, pour ñu mun a def yeneen i extraction wala yeneen i prélèvement ay algues euh, pour ñu mun a compléter li nga xam ne moom mooy investigation yi parce que algues yi amaguñu woon benn résultat laboratoire bi nga xam ne moom moo waroon saytu algues yi dafa ne moom màccul trop euh, fànn boobu donc dañu war a yóbbu affaire bi fële ci centre bi nga xam ne antipoison ñoom ñoo ci gën a am ay jumtuwaay pour ñu mun ko traiter équipe bi dellu na normalement heure yi may wax ak yéen war ñibbisi si indaale ay algues mais du ñu bàyyi désormais benn piste amul benn piste bu ñu bàyyi bu ñu paree ci algues yi en même temps ñu xool file yi en même temps il va falloir aussi ñu xool carburant bi est que amul ay éléments yoo xam ne dafa bokk ci carburant bi ba tax mu am ay ngaañ-ngaañ yu mu jural ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. Euh, daal di wax nag euh, ci édition bu njëkk journée jàppalante di solidarité ci wàllu nag armée bi ëllëg lañ koy daal di màggal ci Sénégal gi yëpp euh, thème ba ñu jël sax mooy daalu mbokkoo ak jàppalante ci biir armée bi waaye itam sargal bépp militaire boo xam ne jot nga rek amee gaañ-gaañ wala rek nga daal di amee cër bu wàññeeku édition bu njëkk bi le nag dañoo bëgg taxaw bu baax a baax ci wàllu matériel ak moral képp koo xam ne daal mbir minimal dal na nag ci wàllu nag euh, bi euh, fii ci ndakaaru dinañ ko daal di nag amal ca cercle de euh, des officiers ci teewaayu colonel Emmanuel Gomis bu fukki waxtu jotee ci nag teewaayu itam ministre bi ñu dénk wàllu forces armées di si di Kikaba ba ba ci sax ki nga xam ne mooy chef d'état-major général bu armée bi di Birane Diop kon xew-xew bi ëllëg lañuy ñuy daal di amal édition bu jëkk bi ñu daal tàbbi ci nag ay téeméer téeméer ci ay magistrats avocats ak ay hommes de tenue yi nga xam ne nag dañ leen bëgg a tàggat ci wàllu euh, àq ak yelleef ci àdduna wërngal këpp naka la koy daal di doxalee ci euh, doomu aadama bi droit bi aju ci wàllu nag jigéen yi nee ñu moom lañuy ñuy daal nag jiital ci euh, tàggatu boobu Sénégal nag nee ñu desu ci gannaaw def na ci ay jéego yu am solo waaye am na lu bari ci xeetu défi li mu daal di dese ngir mu daal di koy nag matal ndorteelu fukk ak benneelu session formation boobu ci wàllu droit international doon amal ci ndakaaru ci teewaayu Odile Minkilaan ci lu jëm ci ak ak yelleefu jigéen Sénégal def na ci ay jéego yu am solo waaye ba tey am na ay textes yoo xamante ne faaw ñu xoolaat ko bu ñu sukkandikoo ci njiital commission sénégalaise de droits de l'homme di maître Papa Sène lu mel ni par exemple âge u mariage article 111 du code de la famille gis nañ ne pour jigéen ñi mën nañ leen a maye ci 16 ans alors que bu dee góor boo amul 18 ans mënoo sëy donc loolu yëpp ay dispositions yooyu lu nga xam ne que ni boo ko xoolee ak le protocole de Maputo dafay am lu mu indi mais également ñu gis ne que sur l' interdiction de la recherche de paternité xale boo xam ne ni juddoowul ci sëy moom la ñuy wax ne que moo ko moo ko meññee nanguwul ko muy ko góor ke su boobaa dañuy tere xale boobu pour que mu mun a def lu ñuy wax topp paternité am la recherche de la paternité pour que ñu def filiation. convention bu Maputo muy article quatorze bi nga xamante ne signé woon nañ ko ci atum deux mille quinze waaye ba tey loi boobee ñu ko doxal mu doon loo xamante ne métti na association des juristes sénégalaises. Abi Diallo mooy seen njiit. xanaa ko jigéen bi war na mun àtt ci yaramam lu loo xam ne moom la xalaat ni moo gën si yaramam moo gën si wérgu yaramam comme sorianto ay njuram ak ni mu koy sorianto comme également bu amee yenn ëmb ci yenn circonstances yi mooy ci yenn anam yi comme sàkk boo xam ne ku ko jege ñaale moo ko def bu ci ëmb sosoo war na ko mun dindi balaa mu yegg fenn fi jigéen ñi moom seen bopp doon na loo xamante ne ministère de la femme mu ngi ciy liggéey bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci ñaaxeelu conseillère technique bu ministre de la femme Absa Wade lépp loo xam ne nekk na instrument juridique maanaam téere boo xam ne dañ ko xaatim pour jëmale jigéen kanam pour jox jigéen àqam ak yelleefam ba bam doy Sénégal am na ci cër ba ci amee cër au niveau international ak biir Afrique fii ci Sénégal cër boobu dafa ko jëmmal naka la ko jëmmale dafa jël ay décision diiru fukki fan ak juróom fii ci ndakaaru ay avoca ay magistrat naka noonu ay takk der ak ñeneen ñoom ñëpp jóge ci ñaar fukki dëkk ci diwaanu Afrique dinañ leen tàggat ci lu jëm ci droit international des droits de l'homme ñu fàtte nag euh, fukk ak juróom-benn bés yooyu di ñaari ayu bés yu ñuy amal seen yëngu-yëngu dinañ daal di amal lancement bi euh, ni ki ëllëg ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu euh, jigéen yi ñettee des ak jigéen yi ak ñetteelu édition forum international Victoria jigéen yi nga xam ne ñoo bàyyi ko nag ci ay réew ak sous région bi daal di nag daje fii ci Ndakaaru ngir daal di nag former ak joxe ay xalaat ci projet yi nga xam ne dañ ko daal di nag teg ngir ngir euh, dooleel jigéen ak wàllu nag parité bi mu ñu nag objectif bi mooy fexe ba euh, ndaje boobu ñu duppee rek euh, Victoria nga xam ne ay nit ñu ay góor sax ñoo ko daal di indi doxalin bi leader yi nga xam ne ñooy jigéen yi ci réewu l'Afrique ñu gën leen fësal présidente bu caucus femme leader bu senegal di faatu Sow Sarr di ci indi ay leeral ak xadiseen forum jóge RDC ak Côte d'Ivoire ndax seen jaar-jaar moo leen xamal ak seen liggéey que ni Afrique pour mu def ay jéego si wàllum développement fokk ñu dugal jigéen ñi pas simplement jóge jógal jigéen ñi mais fokk jigéen ñi bokk fa ñuy dogale looloo tax ñoom ñu xalaat forom bi tudde ko forum du Victoria ñaari at yi passé ñu ngi ko doon def Îles Seychelles ren ñu indi ko dakaar li tax ñu indi ko senegal mooy Sénégal fi mu taxaw ci Afrique euh, ndaxte loi parité bi tax na suñu réew ñu koy cité ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo si gën a avancé liñ ciy rafetlu mooy ay góor ñoo jël initiative bi tey mais li tax ñu jël ko tey affaire parité dootu rek ñu ko nit ñi affaire xeex loo jigéen a góor mooy économie si gën mag ci àddina muy banque mondiale muy FMI muy OCDE muy ILC e, ñoom ñëpp nee nañu pour que yokku yokk yokkutu koom-koom bi nar am Afrique mënul am tànk égalité amul cër lu ñu jigéen ñi ñoom tamit ñu comprendre loolu taxawal forum bu mel noonu di fexe ba jigéen ñi di euh, jokkoo si biir Afrique donc ñu indi fii euh, gabonais yi indi fii waa euh, Congo RDC indi fi waa Libéria ki fi nekk sax nekkoon nag candidat présidentiel Libéria indi fi jóge Côte d'Ivoire ñu am mbégte trop Aminata Mbengue Ndiaye bi nga xam tey moo ñëw ubbi forom bi ndaxte présence am dafa am lu bare lu mu tekki si liggéey bi mu def ci liggéeyu jigéen fii ci Sénégal Euh, li nga xam ni taxaw bi mu taxaw si caucus des femmes leaders bu ñu xeex ci parité mais aussi liggéey ba mu liggéey RDC tang ba nga xamee ne dialogue intercongolais bi dafa amoon tey expliqué ne leen lañ la fa liggéey euh, kon ñun ñuy rafetlu li fi am te di yaakaar ni dina am njëreel ngëneel bu mu jur ndax dana tax ay jigéen yoo xam ne si différents pays africains ñu yokk jokkaloo te tam forum bi at bu nekk day gën di law Euh, bu ñu ku nekk waxante échange expérience mais li am solo dana am ay projets yu ñu fi tabax yoo xam ne euh, euh, buñ ko tabaxee jéem a seet naka lañ koy taxawale ñu mu mu weesu rek Sénégal laa bokk wala Congo laa bokk mais naka lañ lay jokkaloo parce que mbir mi mbiru Afrique la xam ñi benn réew kese mënu ci génn si boppam il faut que ñun ñëpp ñu àndaloo. Euh, doxalin nag euh, foofee ca Tambacounda ci lu aju nag ci wàllu nag recrutement yi fexe ba ñu koy daal di nag euh, def rawatina ci barab yi nga xam ne eh, ñi yëngu ci wàllu santé ci la ñuy daal di liggéey te région yi leen di yóbbu duñ ci am jafe-jafe loolu daal ministre bi ñu dénk wàllu santé ak sociale ci nemmeeku ba mu fa daal di amal kàddu yi la daal di nag rotal moom Abdoulaye Diouf Sarr doon nag jiite ca Kédougou ab CRD eh, ngir daal di nag waajal centre hospitalier régional bu Kédougou ñu déglu ay kàddoom ak Boubacar Tamba. Euh, président de la république rek dafa defandoo ñeenti hôpitaux yoo xamante ne hôpitaux yu mag lañ fii si Kédougou Sédhiou euh, Kaffrine ak Touba mais hôpital yoo xamante ne ñu ngi ko war a ubbi au mois de janvier léegi lañu ñu war a jog xool bu ubbee yan disposition lañ mën a jël pour que ubbite bi nekk ubbite bu am solo moo tax ñu ñëw fii si Kédougou pour waxtaane ko. waxtaan nañ ko gis nañ ne dana soxla effectivement personnel yoo xamante ne non seulement dañuy nekk personnel ñu mucc ayib mais bu ñu leen affecté fii si biir région bi danañ fi toog toog fi toog diir bu yàgg loolu nag waxtaan lañ ko parce que préoccupation yu ñu soulever la parce que très souvent ñu ñuy affecté côté yi bu ñu ñëwee duñu fi yàgg te loolu lu ñu war a mën a saafara la pour saafara ko nag waxtaan nañ si ak gouverneur nañ si waxtaan aussi ak euh, direction des ressources humaines ak euh, direction générale des établissements de santé pour que recrutement bi procédure bi ñu def une procédure territorialisée koo xamante ne ñu ngi lay recruter daf lay wér ne yow mi kat su recrutement dañ la recruter pour nga servir fii si Kédougou de telle sorte que dootoo mën a demander affectation boo ko demandé mooy danga nga sa contrat parce que loolu rek moo mën a tax ñu euh, am personnel yoo xamante ne bu ñu ñëwee dañuy ñëw toog loolu donc euh, waxtaane nañ ko mais en dehors des ressources humaines xam nañ ne hôpital bi tam dana am ay matériel yu mucc ayib visité ngeen ko léegi xam ngeen ne vraiment donc euh, structure dernière génération structure niveau deux la tam moo structure bi nekk Sédhiou ak bi nekk Kaffrine benn lañ amul dara lu ñu wute bon donc ñu ngi féliciter son excellence le président Macky Sall ba mu defee lu ñuy wax territorialisation des politiques publiques fexe ba équité territoriale ak sociale ñu dugal ko suñu démarche Euh, ñu daal di desandi nag ak jàppale bi aju ci wàllu inspect inspection départementale ak éducation formation ba fare nag ca euh, Diourbel foofee nag directeur bu autorité nationale euh, biosécurité moo ko daal di amal moom Ousseynou kase jébbal yenn ci ay xeetu nag jumtuwaay yu ci mel ni ay masque ay gel hydroalcoolique ay thermoflash ak raxasukaay élèves yi nga xam ne nag ak jàngalekat yi ci ubbi teg gi geste boobu nag. ñu daal di koy rek rafetlu rawatina euh, fexe ba feebaru mbas mi ñu daal di nag jaamarloo moom foofee ca diwaanu Diourbel Adama Ndiaye. directeur bi yore autorité nationale bu biosécurité di Ousseynou Kassé nekk responsable politique ci APR jox na autorité yi nga xamante ne ñoo yore wàllu njàng mi ay kit d'hygiène bu ci mel ni ay masques chirurgicaux masque lavable ak ay gel hydroalcoolique thermoflash ñu xayma ko ci lu war a jege ñetti million yu teg as tuut li ni mel nag day fexe ñi nga xamante ne ñooy élèves yi mën a moytandiku wopp bi di Covid 19. bu li xewee war nañu ñëw indi si suñu taxawaay. donc taxawaay bi nag mooy li nga xam ne mooy jàppale nit ñi pour que ñu moytu feebar bi ci profité nag di woo doomu Bamba yëpp te ne am na yu bëri yoo xam ne mun nañ ko def ngir jàppale njàng mi ci li nga xamante ni nii état bi mi ngi koy def di jàppale li nga xam ne mairie bi mi ngi koy def di di jàppale ñu leen si sant di leen si gërëm waaye kenn ku si nekk xeebuñu dara ku ñëw aussi ngir njàng mi gën a ñoŋ te président dafa ci gis-gisam bi daf si boole ñetti tànk la tànk benn bi si wàllu capital humain bi la mooy Sénégal valeur bu mu am si ay nitam jeunesse bu mu am loolu lépp ñu fexe ba ñu ñu tàggat leen ba bu ëllëgee ñu ñu ñoŋ ñu mun a yore réew. inspecteur bi yore wàllu njàng meek njàngale mi di Pape Amadou Sidibé di ko rafetlu. amoon nañu nag ay jafe-jafe surtout ci wàllu masque pour matal ko donc moom bu ñëwee indi ay masque may ko élèves yi donc dañ ko ciy gërëm di ko sant wane ni moom it mi ngi ñuy jàppale tamit dañuy ñaan ñi nga xam ni comme moom ñi ngi dëkk ci biir bamba yi cosaanoo fi tamit ñu xam ne école bi école lu ñëpp la muy doon loo xam ne jëf boo xam ne mën nañ ko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 ñaanal euh, weekend euh, maanaam di leen ñaanal début du weekend bu baax et la yëg rek mbirum point de collecte am mbir la parce que souvent suñu ñu ba war a distribuer point de collecte yi dinañu et dans la plupart des cas yi opérateurs ñoo koy tibb ren dégg naa ci région de collecte pour nañu génne mu six cent point de collecte six cent point de collecte nag au fond car bi rek moo ciy fonctionné li ci des dañ koy tibboo ne dañu uti xaalis ñu jënd gerte béykat yi mais souvent am xaalis ñu am xaalis yi finalement dañ koy nangu jox ko ñeneen wàllu point yi mujj ko annulé producteurs yi dem ci marché Paris ndax ñàkk am fu ñu yaay kon nag point de collecte yi at bu ne at yëpp loolu lañu seetlu moom la ñuy def suñ ko defee souvent banque bi ñu leen war a lebal xaalis day fekk ñu ko xaalis bu dañu mun a am xaalis pour mun a rendre opérationnel ces points là nee nañu bi ñu ubbi le vingt trois novembre ah ñuy ñaan yàlla rek ñu war a jënd gerte gi nañ am xaalis bu day parce que gerte xaalis su ko jënd indee xaalis yooyu ñu wax cent cinquante francs ñu toppatoo ko nag yóbbu ko usine suñ ko yóbbu usine itam li tax affaire bi gën di gaaw moo di usine bi di leen fay di leen fay saa yi ñuy livré gerte bi quarante huit heures ñu xaalis wala gën gaa bëri soixante douze heures loolu itam souvent di am indi ay tolof tolof te itam joytu woon naa itam mbirum abattement yi mbirum bokk na ci li tax béykat yi wala mbootaay béykat yi di tayal gerte yi opérateurs yi pour ñu yóbbu parce que tey amul benn taaraar bu nekk ci bi bu baax taaraar sax amatu fi et que loolu yëpp nag daan loo xam ne lii loo xam ni jot nañ même campagne bu bees ci ni ñuy taxawul su ci ni ñuy jëgul maanaam uh, dina indi tuuti tolof tolof ci liggéey bi. Uh, si di wax nga ko sànq deux cent cinquante di juróom fukk uh, ndax kilo kilogramme gerte googu du tax ñii di nag baykat yi jubal ci marché parallèle bi. waaw marché parallèle bi tam effectivement tey actif na mais nañ jàppan rek béykat yi bëri daanaka pare guñ ci seen farmanko wuñ ci seen yi. suñ ci farmanko ragal naa ni deux cent cinquante bi dina jàll. dina jàll tey ñu ngi jëndee xëccoo gerte gi di ko jëndee kilo na ñoo xam ne par quinze koy jaay deux cent cinquante mais am na yenn bëri yoo xam dañ koy dem ñu ngi koy jaay lu yées loolu parce que ça dépend ci qualité gerte gi ñu indi naa ni suñu demee campagne bi commencé ba huiliers yi ak ñu exporté gerte gi eh, am alal indi alal pour jënd gerte gi yóbbu eh, prix boobu dina stabiliser ba nga xam ne tey ñoom dinañ am gerte mën ko yóbbu dinañ am gerte mën ko yóbbu bitim réew dem jaay wala dinañ am gerte yóbbu ko ci usines yi mun koo koo mun ko mun ko nal et que loolu yëpp nag gerte euh, xaalis bu bëri ko jënd euh, suñu xaymaa ñoom seen bopp lu ñu bëgg jënd euh, li exportateurs yi bëgg jënd ak li transformateurs yi bëgg jënd daanaka jege na million mu tonne million mu tonne boobu nag li ko jënd li kilo à deux cent cinquante alal ji tàkku la kon nag ñaan yàlla rek yàlla leen yàlla may alal joo xam ne mën nañ jënd suñu gerte gi ñu yóbbu ko ñu nit ñu bàyyi xel li njëg li neex na lool waaye wàññi jiw ci la wàññi jiw ci la ngir ngir mën a jàkkaarloog itam xaalis am na solo lool waaye na nga jàpp ni itam lii baaxal say tool li nga ko war a waajal jënd sa engrais jënd sa matériel bu ndaw boo xam ne amoo ko woon mu ko jënd duggul ko ci biir kër gi ngir bañ a rek toog di yaakaar ci nguur gi di yaakaar ndimbal alors que ndimbal na ci fekkee loxol borom fan ni koy faral wala fii di fara di waxee Euh, bi ci des mooy ndax mën nañu am yaakaar buñ ko gëm-gëm leek euh, at yi ñu génn ne campagne bi ren moom mooy tane bu ñu nemmeekoo ne nag wàllu taw bi ñu ci bëri bon jàpp nañu ne euh, moo tane daal yi wees. effectivement campagne ren yaakaar naa ni mooy gën bu daaw parce que ren yàlla may nañu taw may nañu jàppale nguur gi ci wàllu jiw ak ñun effort yi ñu def ba dañ ci jiw et bu ñu conjugué ñaari effort yi effort yi nguur gi def gunge béykat yi ak effort yi béykat yi defal seen bopp ngir yokk mbéy mi. loolu yëpp tax na euh, nawetu daaw bi ak ren bokkul parce que ren am ñu ndox mu doy amul benn yoon maral et que loolu itam tax na alu am amuñ amuñ benn yoon maral jot nañu itam li ñu war a def ci marché bi ci gerte dina am solo lool tax na itam teel nañu jàpp euh, démarrage campagne bi jàppal nañ ko le vingt trois novembre alors que daaw ñu ngi commencé le deux décembre tout compte fait jot nañu daal teretu ren bi mu nara a tere teretu déwén teretu daaw bi et engagement yi huiliers yi jox ak exportateurs yi jox mu ñu xaw a ñeme yo njort ni lépp lu fi ñor ci réew mi rek li ci ëpp solo suñu respecté ci li ñu wax ci engagement yi ñu jël ci biir Sénégal ragal naa ni gerte gi yëpp dina jar fekk gerte gi tam bu yëpp jare baax rek lay indi ci plus value lay indi ci réew mi booster économie réew mi lay def eh, may gën di dellu sama di ñaax sama bopp béykat yi rek njëg li neex na lool waaye nuñ xalaat lu ñëwagul xalaat lu ñëwagul moo di wàññi ji bu baax dañ ci ko xalaat li ñu gul di am nga alal am nga xaalis ndëgg jaay nga sa bërigo gerte juróomi junni jëlal xaaj bi jëndee ko au moins saako engrais dañ euh, kon Sidi Ba Sud FM mu ngi lay gërëm bu baax di la sant maa sant waaw ñu lay fàttali ne yow yaay chargé communication CNCR en même temps di secrétaire général cadre de concertation des producteurs d' arachide di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi Habib Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw yow président bu COPEGA. tey jii nag euh, ñu daal di tàmbale li aju ci wàllu campagne ñu gerte gi euh, gannaaw prix biñ ci fixé ak yi mel am leneen mooy présence su chinois yi ci marché bi ndax jàpp leen ne mën na nekk lu compliqué la campagne bi. man man yaakaaruma ko yaakaaruma ne chinois bu ànd ak entreprise chinois droit chinois yow la day exporté mais entreprise yi exporté yëpp soo enregistré au niveau de l'Afrique soo enregistré au niveau des impôts c'est-à-dire que c'est des entreprises sénégalaises c'est-à-dire que même chinois su koy gérer loolu suñu loi permettre ko étranger ñëw ubbi entreprise ba ko sénégalais di liggéey loolu accord li aju ci taxe taxe bi nga xam ne def nañ ko ci trente francs yi. Euh, yow nan nga ko jàngate. waaw man taxe bi lu ma nit ñi bu nekk bi lay mujj bi lan mooy objectif wu COPEGA ci campagne bi ñu nekk campagne bi la. waaw daaw ñun defoon nañ juróom seen fukki junni tonne la ñu waxoon ne moom moom la ñu exporté daanaka ma jëlee téeméer yu def nañ ko ren nag am production boo xam ne mën na million huit cent mille tonnes suñu wax maanaam ñun suñ lañ bëgg mooy danañ war a mën a exporté cinq cent ak six cent yàlla dimbalee loolu lañ ñaan yàlla wax yàlla kon Habib Thiam Sud FM mu ngi lay jaajëfal bu di fàttali ne président bu COPEGA kuréel googu ëmb exportateurs yi ak producteurs yi. jërëjëf Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre wax sa xalaat ñu daal di koy door jee tey wax sa xalaat ponk yi ñu jukki woon bokk na ci campagne gerte gi ak euh, ca aju euh, bi ci des mooy wàllu migration bi jël gaal guti bitim réew ak ca nekk yëpp ba ci kaabu mujj ca mbuur ña ca faatu ak euh, sensibilisation bi ak yeneen i matuwaay yañ cay def wàllu mbas mi itam mën ngeen ci àddu ci 88 628 98 98 Alassane ku jiitu ci ligne bi ñu jël ko allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam waa te le député Moussa Cissé. Cissé ñu ngi lay nuyu waa waaye maa ngi leen a remercier yéen waa Sud FM dégg naa seen ñaari invité yi ci gerte gi. Hmm. mais monsieur Thiam bi mujjee wax noonu loolu moo wax dëgg parce que c'est pas normal état bi waroon na subventionné gerte gi subventionné wu ko di leen tegati ay taxi hmm. euh, léegi li ma xamal euh, suma frère Modou Diagne Fada bu fekkee ne bëgg nañ gerte. Hmm. nañu yokk prix bi nañu subventionné gerte gi dimbale baykat yi. waaye euh, kilo deux cent cinquante franc euh, su ma sëriñ kenn du gis kilo deux cent soixante quinze et à trois cent franc di jaay deux cent cinquante franc tey ca ngànd boo demee yaa ngi ci yaa ci deux cent quatre vingt cent franc est ce que ak ñoom ni sonn ci seen liggéey bi ak ni sonn ci mbéyam gerte mi di gis gis trois cent franc di jaay deux cent cinquante franc nañ def ni Abdoulaye Wade daan def ci gerte Abdoulaye Wade daan seet li nga xam ne moo nekk ci marché bi mu subventionné ko moom def ci soixante cinq franc mu yokk ci soixante cinq mais commercant bi demal yow nga jënd ci gerte gi ci prix bi boo indi indi livraison à ñu ñun dañ la tegal ñu jor lay fay ñu sa soixante cinq francs yooyu ñu subventionné malheureusement nag moom daan na ci ñàkk ay milliards mais daawul yegg ci baykat yi mm. damay wax sama frère Macky Sall na fexe ba subventionné gerte gi yokkal baykat yi ndax milliards yi ma dégg nii ñuy wax ne moom la ñuy dimbalee ñu euh, cause bu nekk am na lu ñuy wax ay milliards a dimbale baykat yi méritoo nañ ko nañ ci yokk au cinquante francs mu ñëw trois cent francs ñu ne opérateur économique bi trois cent franc lañ day joxal boo libéré Sonacos nangami kilo ñu jox la kilo bu nekk cinquante franc fekk nga libéré ko ba pare te ñu fexe nag ba mu na ci baykat bi. Hmm. puisque euh, régime Abdoulaye Wade da daan ñàkk xaalis ba pare te ay nit ñoo daan dogale xaalis bi ci diggante bi mais daal euh, li may xamal euh, Sonacos. Hmm. seen personnel bi nga xam ne ñoo fay liggéey na nañu jóg dem maintenant wax ak état bi suñ yokkul seen prix deux cent cinquante franc kenn du leen jaay gerte. kenn ñàkkiwul fayda bay sa gerte ba pare ak mbayam gerte ni mu mittee ak coono bañ ca daj. Mm. di gis trois cent franc du jaay deux cent cinquante franc dégg naa léegi ki jàkka wax naan bu marché bu ubbee dañu jaay dañu jaay. ok jërëjëf sëñ bi kon ñu xaarati keneen ci ligne bi Alassane allo. alo waaw allo allo waaw. jaamu tuklo. waaw. maa ñu ngi lay delloo seeru ba. waaw tout d'abord ñu ngi ñu ngi rafet lu baax Euh, euh, euh, thèmes yi di wax rek ne lii nu doon wax muy ci wàllu càmm wàllu mbay bi nga xamante ne tey moom lañu ñu yaakaar économie bi ñu doon relancer mu jox leen ay chiffres ñu leen di wax ne taxawaay ci mbay gi taxawaay bi war mooy ñu fexe yërëm baykat yi lañ leen doon wax démb ak barki démb ndax kii nga xamante ne muy directeur Sonacos bu fekkee ne jàpp na ne moom euh, am na yor na poosam diis na ci la mu waxoon fii ngeen dégg ko ñëpp dégg ko waroon nañu fixer prix mbay mi mu ëpp deux cent cinquante boobu ñu fixé malgré que def nañu effort waaye gerte nag da di recherche bu rëy ci réew mi dañ ko dañ ko war a dooleel comme ni Côte d'Ivoire doolelee euh, lii di cacao donc yooyu dafa am solo ci réew parce que bu fekkee ne ñoom jënduñu gerte bi na mu waree ñeneen ñooy ñëw jënd ko yóbbu seen seen réew muy ay Chinois. Hmm. kon su boobaa Sénégal rek kay ñàkk nanu góorgóorlu côté boobu beneen côté bi mooy euh, wàllu wàllu wàllu mbas mi wàllu mbas mi euh, xale yi ci ci école yi ñu ci bëri léegi comme masque yi ñu doon wax ne dañu koy joxe ci école yi gisat gis nañ ne masque yi doyul ndax xale yi da ngay gis xale yi jóge école kenn du ci tàkk mas day mel dara xewu fi hmm. te lu mel noonu bés bu xewee ci réew bés bu alawti ko li mu fi indi musiba lay doon te duñ ko àttan hmm. nanu góorgóorlu vraiment hmm. eh, lii ñu warloog askan wi ñu taxaw ci nu mu waree ay alliés lañ di leen jàppale waaye ñun dañ leen di ñaax pour ñu gën a góorlu ci liggéey réew mi wasalaamala man i tabal huda waa euh, Alassane bitim réew 33 841 22 33 ba tey allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Oustaz Adama. waaw sëñ bi. El Hadj Xaas Mbaye la Mbacke Bool. waaw xaas ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel. ok ñu ngi lay fay. ziar sëñ Cheikh Fall Mbow sëñ Dior sëñ Modou Doxo ak sëñ Papa euh, mm. Adama. Mm-hmm. xam nga nu gën a ci àdduna mooy nit ki wax te looy wax parce que àdduna pour nga wax li war wax da ko war a xam. gerte gi jarul xuloo jarul xeex. état taxawal na prime deux cent cinquante la ku gis téeméer demal nga jaay téeméer état ku ko mën a jaay juróom ku dem jaay ko juróom jëru xuloo jëru xeex beneen bi ci des baykat yi damaa bëgg ñun ñu wax ñan ñooy baykat yi bay bu njëkk mag ñi dañ ko daan def di bay di dundee léegi bay dañ koo def liggéey man xaas mbay damay am sama xaalis jënd sama jiw jox ñu bayal ma mayut bénéfice kon kenn waru maa joxu jiw kenn waru maa jox engrais maa war a dem jënd sama jiw jënd sama engrais bu dama jàpp surga ma fay ko bu dee dama ko bëgg a def ma def ko su ma ko bëgg a def ma bàyyi ko. waaye nan dimbale béykat mooy béykat. kenn ñooy béykat yi koo xam ne ngay wut xaalis ci commerce. Hmm. commerçant rek kenn wala sa biti sa nijaay la ko war saate wala sa baay. waaye état nañu saat seen biti na dimbale béykat na dimbale nappkat na dimbale sàmmkat yi kuy liggéey ku ne la ngay liggéey yaay jéem a investir su la doyee nga dugg ci bu la doyee nga bàyyi dem seeti beneen liggéey xale yi nekk ci gaal bi nag dem leen dem leen kenn ci yebal sa xale yi am na liggéey foo man a dem ci àdduna ñii dañuy jug ñii daanu ñii taxaw ñii toog amul menn réew moo xam ne tey am na ko wax te sëñ maa ngi koy benn dëkk amul ñëpp ne am maasandoo di dimbale ñii dañ leen dimbale ñii di dimbalee ñu leen tàcc bu yàlla boole xam ne laa war dimbale nangu dogal laa war a dimbale boo bokkee ci ñi war a dimbale deel dimbale waaye ñëpp mun def na man dama cee d'accord parce que am na ñu ne sëñ goo xam ne tey jii xale yi buñ génnee dañ leen di songoo am riir lu mat ñaar problème soog na ngeen ñu fat ñoom ku ku a waaye xale yi yóbbu ci doomi jaamu yi rek ñuy dem ñu wax dem leen dem leen toll sa doom dem ku sa bàyyi doon dem nga téye ko man ba seen caaxaan da yaat seen i kàddu asalaamaaleykum wa barakatuh euh, Assane ñu jël keneen ci ligne bi 88 628 98 92 18 wàllu nag euh, tukki dem bitim réew bi campagne gerte gi allo. ah ah. allo allo. allo waaw. Adama Ndione. waaw. na nga def. waaw maa ngi fi. ça va Mamadou Diop la AIBD. waaw ñu ngi lay nuyu. na ngeen def ça va. Mhm, sant yàlla. waaw affaire njaayam gerte gi de moom li ñu ciy wax rek. mooy nañu lu rek ba xaalis bi di doy ci coopérative yi état bi moom li muy fixé fixé na ko ba pare comme fixé na ko nag moom na fa teg xaalis ba ba du am ay bon MP ak yooyu nañu góorgóorlu rek ba daal xaalis bi na doy ci nit ñi ku soo bëgg a jaay jaay foofu ku bëgg a jaay feneen nga jaay fa. ndax génn nañ ci ay eh, dañ ko war a yokk ak dañ ko war a wàññi nañ ci góor góorlu bu baax rek pour jàpp leen nit ñi xaalis bi bañ a marqué leneen li ci des muy affaire xale yi dem ci géej gi xale yi dem ci géej gi nañ leen nañ ñun ñi nga xam ne ñëpp dañ ci am ay intervention nañ ci jàpp nañ leen ko tere nañ nañ leen di wax ñu jéem ñu bàyyi ko ndax moo gën nañ ko bàyyi sans condition bu ko demee nag bu beneen yoonee lépp loo xam ne lii Euh, dañ ko état bi da ko war a defal nit ñu demandé loolu ñu defal na ko mais dem ci géej gi moom pas question. li gën daal mooy nun ñëpp nu dénoncé ko pour nga xam ne kenn dootu ci di ne xalaat naan da nga dem dem jërëjëf merci. ah euh, Alassane euh, keneen ñu jël ko ci ligne bi biir réew mi wala bitim réew ci ponk yi ñu jukki ci wax sa xalaat bi allo. salaamaaleykum. waaw ah, waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. Adama Dieng de moo lay nuyu fii ci Touba Mbacké. ñu ngi lay fay Adama. waaw di la ziare bu baax di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. Mm-hmm. di nuyu nag sama mbokkeeri Kajoor yi ak fu ñu mën a nekk rek rawat na nag ñu nekkee ci diaspora bi macha allah. Mm-hmm. Oustaz man ci ñaari ponk rek la bëggoon wax muy ci wàllu njëndum uh, gerte geeg njaay mi. Mm-hmm. ak ci mbirum immigration clandestine bi. xam naa tout d'abord damay uh, commencer rek ci wàllu campagne ak arachide bi. vraiment nag di féliciter nag l'état du Sénégal surtout président Macky Sall ndax gis nañ ni. depuis 2012 ba mu ñëwee ba nëgë ni prix gerte bi mos a dellu gannaaw mm. toujours daf koy yokk mm. ba tey yàlla dogal ren ni mën kaa def 250 bien que gerte am na valeur boo xamante ni war na mën a jar chaque kilo 500 ndax it bay dafa métti waaye lii njiitu réew mi def a baax immigration clandestine bi ndax it jàpp naa ni mm. Adama Dieng bu jàppee ni saa bu ba pare bu amee une gerte ñu mën ko jox deux cent cinquante mille bu ci amee quatre tonnes mën a yor un million yaakaar naa su ko defee ñaari yoon ba ñett a demal boppam kon ñu ngi félicité état bi baax a baax di félicité nag vraiment directeur du Sonacos moo kii Mouride Diagne Fada ak gis na ne depuis mu ñëw ci kër ga ba nag mi ngi fay liggéey liggéey bu am solo vraiment am na solo bu loolu jàllee nag ci wàllu immigration clandestine bi mhm. vraiment ñun ñu ngi ñaax suñ mbokki ndaw ñëpp rawat na suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fee Kajoor wala ñu féete fii ci Touba mhm. nañ toog ci réew mi liggéey njiitu réew mi am na gis-gis bu leer waa DER yokkal nañ leen seen enveloppe de cent milliards nañu bind ay projets yu palpable yóbbu ko foofu ñu financé ko wala ñu yóbbu ko FONGIP président taxaw na pour encadrer ndaw yëpp pour kenn ku ne am ci loo jàpp képp ku indi procès bu palpable bu dee bu bu bu boo xamante ni tege na ci aw yoon dañu remboursé ndax it deer jaar na fi ay procès yu bëree bëri mos yàgg na say jaar mais ba nga nit ñi dañoo jël xaaj bi tukkee ko ko wax ne Macky sa bopp Adama Dieng bu ñu ko joxee cinq millions bu liggéey dafa war delloo ñu jox xaalis mbay wala ñu jox keneen ak keneen mais ñu jox xaalis état nga nga a ko naan état ak di ko tekkee ay ñaareel moom loolu wax dëgg yàlla day baaxul cim réew daal jërëjëf Oustaz Adama yaa ngi yàlla jàppale. Euh, Alassane ñu xaar keneen ci ligne bi bu waxtu wi dese. Euh, ci 88 628 allo waaleykum salaam. Oustaz Adama. waaw. Seydou Jamil Faye bu Touba moo ngi lay siyaar. waaw sëñ bi ñu lay delloo si. li may wax daal mooy état bi. ala xaal na la nit ñi. baykat yi li ma leen di wax mooy bu leen kenn kattu bu leen kenn pireel euh, xaw ma fixel prix. lu leen neex rek nañ ko jaayee ginnaaw ñoom ñoo sonnoon nekkoon ca tool ya di liggéey buñ demee ba toolu fii bu leen bu leen càpp nañ leen bàyyi ñoom dañuy wax rek yoruñ dara yoruñ lu ñu jëndee dara ci gerte gi nañ leen bàyyi ak seen sago ñu demee nu mu leen neexee bu leen kenn càpp càpp baaxut fi mu toll nii jubluwuñ ci lu may càttu leen rek yàqal leen baykat yi li ñuy bay di sonn nii duñ ci am dara sa ceeb buñ ko ci jëndee ak diw mu jeex ngir yàlla nañ leen bàyyi ak liñ jot am ndax ñoom ñoo sonnoon tax a jóg mooy xale yi nga xam ne yàlla dogal na ñu ñafe jaayante bu dugg ci biir ndox mi laa ne président Macky bul seen yaakaar bu leen tourné nañ leen bàyyi ñu toog foofu di jéem a xool nag ñi des nan la ñuy def ba ñuy bañ a dem waaye nag dem ba pare ñu leen di andiwaat loolu moom teguwut fenn bi yoon comme ñoom ñi ngi fii am nañ jotug bu leen neexee di diilanteeg a naxanteeg bu ñu xuloo tey bu subaa ñu àndaat di jaxase nit ñi kenn xamut li ñu nekkee hmm. li ñu bëgg mooy nañ bàyyi xale yi comme jaayante nañ ba def ay quatre cent mille ay six cent mille ci gaal gi euh, sacrifier seen bopp ba àgg bu leen kenn andiwaat lu loolu nag loolu moom xalaa ku li xaal président Macky lañ koy wax nañ leen bàyyi ñu liggéey mm. nañ leen bàyyi foofu ñu liggéey ñeneen ñi nga xam ne ñoo demagut nag ñu xool ni ñuy def ba créé ay emploi comme li nga xam ne moo taxoon ñu fal ko waaye ñun ñu ngi nii wóolu woon ko jox ko réew mi na ko liggéeyal ñu dem ànd def seen groupe di nax di diil ak teg ju kenn xamut lu ñu def tey bu ëllëgee ñu def leneen ba pare nekk fii di wax fu ñu toll rek di wax ay waxi kese loolu mooy lan xale yi nag laa ne ñoom bu fekkee wax nañ Macky ba Macky andiwaat leen fii ci réew mi mm. nañ fexee takku nag jàmmaarloo ak ak réew mi bu baax a baax lépp lu waay bëgg a defati te neexut nañ taxaw jàmmaarloo moom fexe ba loolu du am buñ ñëwee bu fekkee Macky fexe na ba ñu ñëwaat fii ñoom xale yi nga xam ni ñoo demoon nañ takku nag fexee jàmmaarloo ñoom ni leen force di ngay liggéey ci nii wala ci naa parce que nag suñu xaalis lañ leen di xaalis biñ leen di fay foruñu ko dañ koy liggéey di ci sonn ñoom ñuy dugg ci palais di neexal ay nit di tax di dox yu kenn xamut. Euh, ñu xaar keneen ci ligne bi ba tey euh, ci ñaari ponk yooyu allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Adama Ndione. waaw. Gora Baye Fall Kër Sega di wootee Diourbel. waaw ñu ngi lay nuyu waa Gora. ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan suñu am ndax dafa yàgg si si changement daal di jot sëñ Ismaël Seck ñaari ñëpp di wax ni. Eh, wàllu mbayum gerte mi day moom wax dëgg yàlla di eh, di gën a jaajëfal président hmm. ndax waaw góor dina tax nit ki xam ni lii mu def baax na mu gën a góorgóorlu waaw ku def lu baax nag ñu wax ko hmm. ku def leneen it ñun la nii nga defe day lii nga def day eh, ñu yedd la waaye ku def lu lu baax ñu sant la gërëm la ñun daal noonu loolu mooy suñu position hmm. ku defut la nga war a def ñu wax la fàttali la ko président nag yaakaar naa ba mu fi ñëwee léegi loxoom mosut a jóg ci baykat yi jóg ci baykat yi te it rek la fi nekkal waaw kon bu ñu demee tey ba ba ba bay jëndee prix gerte deux cent cinquante franc euh, ak nawet bi yàlla nañ ko muurloo yàlla na ci yàlla wasal barke te nit ñu ragalaat yàlla ci natt yi ak peese yi bu nawet jotatee parce que yooyu yëpp bokk na ci liy gàntal am dañ ko bàyyi xel bu baax a baax président bu laaj jiw jotee dinañ ko laaj bu su soxna sonee jotee dinañ ko ko sant waaye bu jaay jotee ñu ne kon jaay ku la neex ku ñu neex ak lu ñu neex am ànd nag bu ñu bëggee mu dëgg du dëgër il faut ante dëkk kenn ku ci ne dafa am lu la war diggante état bi ak ak baykat yi ak ñeneen ak ñeneen waaw waaye eh, eh, état jox ñu rek te doo ñu laaj yaakaar naa ni du état noonu lay doxe itam nag loolu moom foog ñu bàyyi ko xel état dafa am responsabilité yu ko war waaye itam dafa am ay kii itam yoo xam ne war na na ñoom moom foog ñu di bàyyi xel bu baax mbënd euh, mbëkk mi nag mbëkk moom ci boppam moo rek moo parce que mbëkk moom lu ne dajee cee xaj waaw mbëkk bopp bu toj xaj na ci leneen ak leneen xaj ba baaxut dañ ko bàyyi xel bu baax li ci kilifa yi wax rek mooy dëgg xaru la gën a jige parce que yu dem juróom-ñeent fukk yëpp des ci géej Euh, kon nag euh, Alassane ñu xaar keneen xëy na ku mujj waxtu waa ñuy bëgg a tàpp 88 628 allo. allo allo waaw. Oustaz Adama. waaw. kii El Hadj Xaaye Gueye. waaw ñu ngi lay nuyu Xaaye. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay. di nuyu Darou Gueye ak Santhib nag njëriñ làkk. Mhm. ak dëkk yi leen woon. ok man dama doon wax mooy mbirum euh, bascule bi taxaw tey parce que loolu la ko olof yi waxee bascule taxaw na tey lañ daan wax. ñu ngi ci gërëm état bi ci prix bi mu ko jëndee. ndax Euh, fekkat na ne fii état bi jox baykat yi aw jiwu ci kilo trois cent trente kemb tey nag boo ko bëggee jënd deux cent cinquante xott loolu am yokkute la te ku ne xam na ni état bi amoon na lay bu mën na teg ndax mën na ni Covid 19 bi wër àddina bi nga xam dafa laal koom-koomi àddina bi mën na ko jënd sax fanweer kon ku bëgg jaay ku bëggul ba waaye nag jàpp na ci moom toujours surtout nag le ministre professeur euh, Moussa Baldé ak direction yi mu àndal yëpp ak seeñaak ñu fixé prix président fekk si leen ci loolu lu am solo la. parce que kilo 250 ci xott moom baax na lool. te kat mi leen ko joxe woon 330 kemb loolu am na solo nit nag booy ji mu xool fa te bi mu leen ko jox 330. boo demee ci marché hebdomadaire mi ngi fa jar 700 état bi subvention bi jox leen ko 330 mu jor mu nu ngi ko jëlee 250 te président Macky bi muy ñëw 2014 150 la fekk kon yokk na ci looloo tax ñu waxal président moom lu mu fekkan fukk def na ko ñi ñeen fukk lu mu fekkan ñeen fukk def na ko juróom-ñeen fukk noonu nag mooy programme bu baax te looloo tax ñu fal ko looloo yoonu yokkute moom réew yokk Sénégal yokk mu nekk ci nguur gi yooyu nag na waaye nag moom dañuy muñ rek te xam ni moom oto bi ci kanam te ni klaxonné bi ci ginnaaw kenn waxul ak moom ñu ngi ko rafetlu bu baax mbëkk mi nag la ma ci waxan laa ci wax képp koo xam ne yaa ngi encouragé booy yi dama yaakaar dag leen bëggul réew mi daa mel fi toog liggéey fi tekkee fi ndax état bi teg na programme yi wér te dëkk bi am na liggéey ndax Italie am na problème France am na problème defe naa fan yi ñu ngeen confiné kon ku fa jëm loo fay wut xëy na toog ci liggéey réew mi ñu liggéey ci ñu ñëpp jàppoo ñu nekk benn Sénégal jëm kanam man de loolu laa leen digal wasalaam ah kon mooy doon auditeur bu mujj bi waxtu yi dab nañu fii ak boobu 22h ak Marie Rosalie Ndiaye xibaar yi ci yaatal lay doon ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Alassane Wade moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc bi tii ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. xibaar yi.